bal alalu réew mi jébbal ñoo to bi jaay nga pétrole ak gaz bi yéegal dundu askan wi gouvernement force kel Antoine terroriste ngóoru si ko paat xooli xaat sàcc kaatu milliard dëkk bi gën di tar ngeen bennoo bokk tas yaakaaru réew mi taxaw yeewi askan wi fayda la mbënd la réew mi taxaw yeewi askan wi nappkat bi baykat bi yeewi yeewi askan wi ci xiif ci mar ci jaaxleeg rafle yeewi yeewi askan wi bëgg a faju mu tëll mbënd mi songu la maala fal maala fal bu tur ne xëy ma daal ànd ak say nit bandi tege lu bal alalu réew mi jébal ñoo tubaab bi jaay nga pétrole ak gaz bi yéegal dundu askan wi gouvernement force kel Antoine terroriste ngóoru si ko paat xooli xaat sàcc taatu milliard dëkk bi gandi tar ngeen benn bokk tas yaakaar réew mi taxaw yéewi askan wi ci xiif ci mar ci jaaxle rafle faju mu tëla mbënd mi songu la réew mi taxaw yeewi askan wi nappkat bi baykat bi sàmmkat bi di jooy réew mi taxaw yeewi askan wi jeunesse bi yépp ñu boole sacrifié papaak yaay booy su réew mi neexoon sama du jël gaal ma du dee al ngala sa carte yi sa baat fi ak juróomi at bul ko sàggane ci waxu politicien bu soo gloria bi si junne saaku ceeb bi bul nangu yow ñu naan la si Sénégal la soxla boppam réew mi réew mi askan wi réew mi ñoo am ba léegi dëkk bi président bu baax la assemblée nationale ñoo am ay député yoo xam ne danañ ko mën a teewal kaay même bu ci droit bi yabaloon nga ay ndaw assemblée nationale ndaw loolu ko yabaloon def ko cinq ans bu ci bëggee def dara bu ci bëggee wax dara Adama Ndiaye ñu ngi lay nuyu dégg nañ la bu baax a baax ñu ngi lay dégg su ko mënee xëyee da ngay def teel a boo def ngay yóbbu am solo di tàggatoo nga xam ne yërëm askan maam yaa ma lay àndoon réewam jaral ko ba tàmbam naamoon na doon na doon waaye soxna yeewi askan wi nanu yeewi nappkat bi baykat bi sàmmkat bee ngi jooy jeunesse bi yëpp ñu boole leen sacrifié Sénégal nag moo soxla boppam na ngeen def woote bi intercoalition yeewi ak wàllu dem Seigneur Cissé ma nga jëlee soxna Rokhaya Ndiaye ma nga ma nga nee kon nag askan wi ci xiif ci mar ci jaaxleeg rafle yeewi yeewi askan wi bëgg a faju mu tëll mbënd mi song la maala faal maala faal bu turne xëy ma dal ànd ak say nit di kompaloo yàq réew mi sàll dongari ka bandi dége lobal alalu réew mi jébbal ñoo to babbe nga pétrole ak gaz bi dundu askan wi gouvernement force keel Antoine terroriste ngóoru si ko baat xooli xaat sàcc 4 milliards

du jël gaal moo du dee al ngelaw sa carte yi sa baat fii ak juróomi at bul ko sàggane ci waxu politicien bu rek soo gloria si junne sàkku ceeb bi bul nangu yow ñu nax la si Senegal soxla boppam réew mi taxaw réewi askan wi

nappkat bi baykat bi sàmmkat bee ngi jooy jeunesse bi yëpp ñu boole leen sacrifié Sénégal nag moo soxla boppam. cohabitation pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal cohabitation di dirigé le contrôle bi di gérer action gouvernementale bi donc je crois que ku ci nekk tey jii nii sa carte dafa am benn boo xam ni mooy tey bu ñuy bind histoire du Sénégal.

da tey caravane yeewi yeewi askan bi bi tax ñu war a yeew askan bi yaa ngi gis ne ceeb mi ngi seer yaa ngi gis ne dulin mi ngi seer yaa ngi gis ne dëkk bi mi ngi am injustice yaa ngi gis ne liggéey amul si dëkk bi yaa ngi gis ne tey gii nii askanu Kaolack nu ñu sonnee xoolal tey Macky Sall suñu port bi moo ñu waxoon ne dina ko defar gis nga ne suñu port bi defar ko nga xool tey Macky Sall suñu université bi moo ñu waxoon ne dina ko def nga gis ne def ko nga xool tey Macky Sall tey moo waxoon ne marché central bu euh, euh, marché central bu Kaolack dina ko defar nga gis ko defaru ko marché Medina Baye ku ñuy wax tey moon Ndiaye Rahma moo ko waroon defar te mi ngi nii defar ko kon na tey askanu Sine Saalum nga xool tey engrais du métier nga xool tey engrais vingt cinq mille trente mille nga xool tay jiw yi doxul nga xool tey béykat yi seen jur yi ñuy sàcc nga xool tey gii askan bi nuñ sonnee injustice bi nekk si dëkk bi. nga gis tey ñàkk liggéey nga gis tey ki ni ay député yoo xamante ni jàpp nañ leen si ay faux billets nga gis tey ay député yoo xamante ni jàpp nañ leen si passeport léegi na nga gis tey dund cher lépp cher kenn liggéeyul léegi loolu nag yaa yeewi sa bopp noo yeewee sa bopp nañ votal li si yeewi Macky Sall bu ko kenn votal Macky Sall dafa ay gaaf bu mu ñëwee Kaolack Kaolack tawul bu mu ñëwee Kaolack yàlla dafa téye ndox bi ndax ay gaaf parce que tey tey gii nii soo xoolee tey gii nii couleur bu mu yore couleur couleur couleur tey mbóot la te mbóot tey sobe la douce yaa comprendre fas bi dafa ay gaaf kon nag tey ñuy wax tey askan bi nañ libéré seen bopp bu kenn votal Macky Sall parce que tey da xool ñun tey Sénégal da ngay xool litre de diwlin tey 2000 litre de diwlin tey 1800 nga xool tey kilo ceeb ñaata nga xool tey kilo yàpp ñaata nga xool tey askan bi nu ñu sonnee di souffrir. kon nag askan bi nañ yeewu il est temps ñu yeewu parce que tey dañoo sonn xoolal xale ndaw di dox sonn gis tey njàng mi doxul gis tey faj bi tey doxul nga tey sàmm gi doxul napp gi tey doxul mbéy mi tey doxul maanaam daal tey dëkk bi daal dara doxul dara dara dara dara dara dara dara dara lu fi dox moo nekk sàcc moo fi dox lu fi dox moo nekk jaay yamba lu fi dox moo nekk jaay drogue tay tay gis nga tay douleur yi tay luñ amé doolé ana tay gouvernement bi ana tay police agression bi bëri ci si dëkk bi camariole bi bëri ci dëkk bi trian bi bëri ci dëkk bi kon nak asel na yew suñ bop parce que tay da ngay xol tay même sa fils kaw Kaolack nangaan suñ autorité suñu gouverneur daf ñoo nax mo ñu waxon nañu dem leen ngeen jël sen cadante ñu dem di jël suñ cadante ñu dóor ñu ay grenade légui tay pourquoi pas ñu jël ay grenade ñu téye suñu calendrier ba tey depuis élection mairie ba léegi kenn jot suñu calendrier kon tey askan bu tey yeewu leen xaalis bu ñu leen jox lekk leen xaalis boobu seen xaalis la parce que tey gii nii soo xoolee tey gii nii Macky Sall tey avant moo nekk tey avant moo nekk tey dara avant mooy tekki dara Macky Sall mënul may sa 10 000 francs Macky Sall mënul may sa 5 000 francs kon nag tey jii kon nag tey jii suñ demee tey ba di may ay 1 million di may ay 50 millions loolu tey xaalisu askan bi la te askan bi. député yi am solo parce que député yi ñoo mun a voté ñu wàññi budget Macky Sall chaque tey at mi ngi feegu huit milliards ak leneen tey loolu di si seen doom di wax ak yéen nañ changé il faut ñu changé le système loolu di si baatu askan bi sama gars yi whatsapp jaajëf bëgge bëgge bëgge bëgge bëgge na Rokhaya Ndiaye mi nga xam ni moom moo nekk présidente mouvement ma femmes Pastef bu Kaolack nekk à la huitième nekk xale bu am jom xale bu am fula am fayda fii nga xam ne nag lay nekk nii ñoom Babacar Thiam ñoom Cheikh Tidiane Bichey ñoom Baye yàlla liggéey nañ fi liggéey bu mucc ayib di leen xamal nag avancé capital bi nga xam ne élection yi am nañ ko ci législative bi passé dabaloon ngeen ay député ñu dem def nañ fa cinq ans defalul leen dara tey ñu xamal leen ne la assemblée nationale bi passé dañ leen a joxoon benn projet de loi boo xam ni dafa waroon a criminaliser mbirum góor jigéen bi ñu ko andee fii waa sàmm di koy xalif général bi signé na ko bañ ko yóbboo Tiwaawan sëñ Babacar Si Maafi signé na ko bañ ko yóbboo Touba sëñ Mountakha Bassirou signé na ko mais bañ ko yóbboo assemblée nationale Macky Sall ak ay ministres ay députés dañoo lànk ndaare na duñ signé projet de loi boobu kon ñu leen xamal na leen ku votel Benno Bokk Yaakaar yaa dooleel mbirum góor jigéen ku votel Benno Bokk Yaakaar yaa dooleel ay contre valeur kon donc nag bulletin bu baax bi ngeen war a voté mooy bulletin Yewwi Askan Wi te bulletin boobu nag ñu ngi woowoon leen na bàyyi ñi nga xam ne ñëpp am nañ ay téléphone war a def ay live Facebook ñu leen di jox rendez-vous fee ci kanam ñi nga xam ne yor nañ ay téléphone war a def ay live Facebook ne leen yow laaj xam nañ ne victoire bi ñëw na ba pare gañe nañ élection yi li ñu def nag mooy image bu matériel bi ñu defee ñu ci def mën nañ mën nañ ci def tawa bi ci wone ba ko am ci dana ko tawa bi ko am ko mën a tëdd amatul nit seen nekk suba kon donc yaakaar naa ne tey during this enterprise. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. mbokk Sénégal mbokk Kaolack mbokk Medina Baye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am kontaante bu rëy rëy rëy ci mbég gunge bi ngeen ñi gunge ndax liñ ñi ñu song nii ñun ñoo ko bokk ñu ñëpp te loolu mu ñu fi indi pour ñu waxtaan ci muy muy muy askan bi ñu bokk ko ñu ñëpp te wan ngeen ma ko yéen ñëpp. Kaolack yëpp ba Sénégal ba international ñëpp gunge ne ñu ñii ak seeni xool xol ñii ak seen i doole ñii ak seeni mën-mën ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax la 31 incha allah bu kenn rate ngeen yeewu seen identité yi def leen ko ak gaan ngeen def ko ci seen poche yi balaa 18 heures àdduna bi yëpp dégg tëf-tëf man daal loolu laa leen ñaan di leen ñaan pour ngeen xam ne tamit askan bi sonn neen sonn neen sonn bu jéggi yoon ndax ñun Kaolack rek sax man damaa foogoon na coono bi fii rek la am waaye ëpp na fii ñun liñ am sax ñeneen amuñ ko te nag lii nag suñu responsabilité ñun ñëpp la képp koo xam ne ñëwul ànd ak yewi askan bi ci heure bii nii yaa ngi lool askan bi askan bi sonn neen fekkee yéeg ngeen ko ak yéegu leen ko nit ñaa ngi jooy jooyu xol ñii yee ñi jooy ci seen biir kër yi ñii yee ngi jooy ci mbedd yi ñii jooy ci néeg yi nit ñi sonn neen baykat yi sonn neen liggéeykat yi dañuy liggéey ba sonn te duñ jëriñu jom ak fulla fayda gi fi nekkoon bi yàq neen ko yàq neen jubba askan bi waxuñ dëgg defuñ dëgg leblewuñ dëgg loolu nag ñun ñoo ko war a xeex heure bii nii te chance bii nii bu leen rate nañ leen taxaw pour lii jeex léegi léegi le 31 incha allah affaire bi jeex ku السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله مبكو كاولك Salam alaikum wa rahmatullah Bokum Medina Bay Nous nous nous nous Di Massaou Nye anda caravane depuis 13h caravane depuis 13h A démarré est quartier du bris et même mobilisation jeunes yo xamante depuis 13 heures il ci a mais ñu ci suuf di daw di di joxe ay ay nous remercier bu baax ñu remercier aussi toutes les parties prenantes de la coalition Askanbi et de la coalition Walou, parce que organiser une campagne électorale Yomboul. la logistique bi Yomboul. mobiliser tous les jours les gens Yomboul. motax ñu on a vu les efforts la synergie bi nga xamanteni mo ñu indi ba fi bo permettre ñu au-delà de créer une dualité avec wa beno dañ leen déjà dañu jël dessus bi ci ñom ku nek xam nga bo nekkee ci échéance yu mel nii da ngay def ay enquête des personnes ressources nga leen demande lan mo xew mais ñepp war xam wane nañ ne Benno moom mu ngi ci suuf ñu ngi ko def ci dappu lal bi donc Yewwi moo ne ci kaw. moo ñu war loolu nag effort ñep la ñu ngi gërëm ñep di sant ñep c'est pas un moment d'évaluation c'est justement un moment de remercier les gens mais encourager waat len ne leen nag fi ñu suñu tànk campagne mo jeex wante élection paregul ah tant que jotuñ suñu PV tant que une victoire pareeguñ donc surtout à partir de demain opération électorale moïse bureau de vote dans toutes les circonscriptions électorales 14 communes il faudra qu'on surveille tout il faudra que le mécanisme de centralisation des résultats soit opérationnel parce que la victoire est irréversible

waaw salaamaaleykum wa rahmatullah yen waa diwaanu Saloum ñu ngi leen di nuyu yéen waa Kaolack ñu ngi leen di nuyu rawatina yéen waa Jalañ olof ñaay dafa wax ne kuy wal yaa ni sa dëkk dafa tagul lu waral loolu mooy olof ñaay nee kuy wàlli yaa sa dëkk dafa tagul luy waral loolu mooy lan yàlla dafa def coalition Yewwi Askan Wi ba mu demee ba bëgg tànn yoo xam ne dañuy teewal Kaolack teewal département bi dañu xool ci biir Kaolack tànn ci biir tànn yi waaye yàlla def ñu tànn jigéen ju mat góor di doomi Jalañ di doomi Saalum ñu koy wax Soxna Rokhaya Ndiaye yemut ci na doomi jalañ la waaye xam na li askanu Kaolack yëpp di dund waaye rawatina mu nekk jigéen bu am xam-xam am engagement saa su nekk mu jugee fii daw lum gàtt gàtt ay kilomètres ngir def devoiram te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne al umma madrasatun ida actadaha acta shaab altayib al araqi mooy na jigéen jigéen école la école la bu préparer avenir avenir boobu bu ñëwee dafay am ñam dafay am meññeet soxna soosu moo nekk fii di soxna Roqya Njaay di doomi Jarañ di doomi Saalum di doomi Kaolack ndax kooku di ngeen ko jëndee koo xam ne juróom-ñaari at la def fii ci mairie bu Kaolack nekk ministre mënta defar kanaal yu nekk ci buntu këram mene suñu wajuri na ngeen ubbi seen beut suñu yaay yi na ngeen ubbi seen beut suñu mag yi suñu rak yi na ngeen ubbi seen beut waye même suñu doom na ngeen ñaan ta xamne soxna mi bu yegge assemblée baatu salum dina fa jog dina wax ci mbay mi dina wax ci njàng mi dina wax ci xey mi dina wax ci canal bi dina wax ci leral bi ndax ku xol xamne ci xolu la ndax jalan dafa nek ci digante ñaari dekk yu am solo muy Medina bay ak nañe sen waye tamit Touba Ndorong fete ko xarf waye tamit suñu kër mam kanel fete ko penku kon nak jarañ yalla daf na bañuy tan tan neen domam kon lan mo ci dess sen wa jarañ moy le 31 ngeen jël sen carte jël ko wotal ko yewi askan bi pour ñu mëna yewi senegal yewi kawlak ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant te am nañ yaakaar ne noonu rek lay demee yéen waa Jalañ ndax am député boo xam ne bu ngeen ko soxlaa mën a dem fekk ko fa toog wax ak moom bokkut ak koo xam ne dafa jàpp ne dafa war a jënd askan bi ci njëg sénégalais warta am njëg sénégalais lépp lu mu bëgg a def moo ko war a defal boppam te changement bi nga xam ne àddina wërngal képp mi ngi koy prôné suñu président Ousmane Sonko di ko prôné ba yàlla defee mu jël si ngañ soor lim njëkk a def mooy fexe delloo askanu Afrique lu moom mboolem loo xam ne tubaab bi dañ koo jëloon mu jël ko delloo delloowaat ko ay africain kooku la Cheikh Ibrahim Niass doom junju ne Afrique aux Africains kooku la Cheikh Mawlana Xaadimu Rasul doom junju ne dindi leen janj yi dindi leen takk-takk yi kooku la Sidi Hadji Malick doom prôné kon mbokk yi nañu fexe ba occasion bi bu mu ñu raté soxna Rokhaya Ndiaye mii ku ko yóbbu assemblée mu ànd ak góoram professeur de droit docteur Abdou Aziz Mbodj ànd ak seen jigéen Seyda Zeynabou Cissé di doomu daara di xaafizul Quran ma ne xam ngeen ne boobaa Kaolack dina am changement Saloum dina am changement kon ngeen la na ngeen fexe ba la 31 ngeen jël carte bu baax bi dugg ci biir urne woteel coalition Yewwi Askan Wi ñu mën a yewwi Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullah Yeah, be there. leen ziar di leen jox yéen ñëpp nag seen wàccuwaay di nuyu ñi nga xam na nii surtout ñoom laa gis nii ñu taxaw si jiital sama borom kër maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu suñu kilifa monsieur Konaté di nuyu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñëpp laa bokkal koñ sama yaay maa ngi leen nuyu bu baax gindoo di nuyu ñëpp su ma limee damay juum di leen di xamal ne la coalition Yewwi Askan bi ñoom ñoo ñëw tey nag su koñ bii di jalañ nuyu si leen yegg si tat di leen tàllal loxo ñu di leen di xamal ne coalition Yewwi Askan boobu ki nga xam ne moom moo ko jiite si mooy suñu tàddali si départemental mooy docteur Abdou Aziz Mbodj ki ci tegu di Cheikha Zeynab Cissé di doom si imam Assane Cissé man mii ma bokk ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk si liste national bi si huitième position ma di leen di xamal ne

teg si lan mooy santé feebar faju jafe na lool ci Sénégal actuellement surtout ci Kaolack ma di leen di xamal ne Kaolack ak fi mu toll waroon na am hôpital boo xam ne nii plateau médical yu relevé ñoo fi nekk waaye da ngay dem ci maternité bi di nekk ci hôpital bi nekk ci en phase de travail lal bu ndaw nga bokkook sa morom alors que Kaolack war na dépasser loolu ñu jógee foofu ñëw si éducation bi njàngum xale yi da ngay jàng am sa diplôme ranger ko sa tiroir toog di chemin maa ngay dawal jakarta dawal jakarta baax na naam waaye am na lu ko gën Kaolack dafa nekk dëkk boo xam ne nii Carrefour la dafa waroon am recherche jeunesse bi am fu ñu liggéeyee jigéen ñi am fu ñu daanee doole bu ñu fàtte nag Kaolack ay jigéen ñu a ñoo fi nekk ñu gëm seen bopp bëgg liggéey lool sax surtout ña may wax yéen jigéenu Jalañ dafa am loo xam ne politique la Jalañ ñu yàggat mu nekk culture fii mooy lan ba élection jotee politiciens yi dinañu ñëw nag indi seen xaalis jox leen ngeen paree voteel leen bu ñu paree romb leen dem bu ngeen leen soxlaa toog seen buntu kër yi rang ba sonn jëriñu leen dara li ëpp solo mooy li ñu naan may ma may ma xaalis jàngal ma may ma jën jàngal ma nu ñuy nappee moo ko gën jeunesse Jalañoise yeewu leen jigéenu jalañ yeewu leen mbootaay si la nit ñi di profité di indi seen leket yooyu teg si xaalis séddale leen du leen njëriñ dara dafa jot ngeen bàyyee xel seen seen njaboot ji nga xam ne yéen yéele leen jur jigéen boo fi gis muy daw doomam mooy avenir am sa doom yi bu ñu réussir rek réussir nga bàyyi leen xel seen doom yi bàyyi leen xel seen avenir doom xaalis bi ñu di jox tey ngeen koy lekk mu jeex ñu leen di xamal ne coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal dañoo fas yéene incha allah rabi toogal askan wi toogal Kaolack waay te si hémicycle ba Kaolack nag am nañ ay député mais député Kaolack kenn xamu leen seen bopp lañ fa toogal seen yoon nekkul si jàngatu Kaolack waay seen yoon nekkul si métitu Kaolack waay seen yoon nekk si ndaw Kaolack seen yoon nekk si jigéenu Kaolack bu dul soxla leen indi xaalis mel na yow seeni ginaar wisal leen buñ paree dem ñibbi loolu defe naa ne war ngeen ko bañ changement la ñu bëgg rupture la ñu bëgg transparence lañ bëgg sa assemblée nationale ba budget yaa nga fa ñetti nit a koy dundee fukki nit ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon dundee war si seen xelu seen jabar ci si dund ñoom ñu toog di di di vivre la pauvreté bàyyi leen xel bu baax a baax a si choix bi ngeen war a def le 31 incha allah rabbi seen carte bu leen ko jaay ngor kenn jaay kenn du ko jaay te jigéen ñi jëlañ duñ jaay seen ngor jeunesse su jëlañ duñ jaay seen ngor ndax 10 000 ndax dootul am dañoo romb foo xam ne nii politicien day ñëw soxla sa carte d'identité jox lañ 5000 francs wala 10 000 francs ne la voté ma bu paree dem yoonam ma leen di wax bu leen raté. rendez-vous rendez-vous bi ci la ñu jëm mooy le 31 incha allahu rabi changement la ñu soxla rupture la ñu soxla te dañu leen xamal ne troisième mandat du fi am te première phase trois bi nga xam ne nii fa la ñu mën war a taxaw xeex troisième mandat mooy législative yi di ñëw te j'espère que du ngeen nangu mukk suñu démocratie kenn du ko caxat caxatee kon nag ñu leen di jox rendez-vous le 31 incha allahu rabi balaa loolu nag maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp. di len di sante di gërëm surtout sama dekkondo ndax nak gis na ni ngeen ma tiyé di gërëm bu baax xalé goor yi nga xamné ne ni ñoom laa nekkal di liggéey depuis début campagne ba léegi seetaanuñ ma ben yoon ku nekk xamné na ñun campagne wuñu xaalis doodo so la ñuy def li nga wara jëri sa rew ci lool la ñuy yëngu ñun donc gërëm na len bu baax yeen jambaari yi na len bu baax yeen Ousmane Sonko yi na len bu baax yeen Linguère yi ngeen jëf merci beaucoup te sacrifier njiit bu ñu bu am xam-xam yërëm askanam yamale ay mbokkam réewam jara ko bakkanam na nam na doon mën na doon coalition yeewi askan wi nanu yeewi nappkat bi baykat bi sàmmkat bee ngi jooy jeunesse bi yépp ñu boole leen sacrifier Sénégal nag moo soxla boppam